ñu farlu ci liggéeyal yàlla bisu seigne Aliou kan bi di ñew surtout bisu seigne Aliou kan bi di ñew di mbalen gi ku ne ci ñun jappal ni yow kep ya ko defal bam mu ku ne ci ñun jappal ni yow kep ya ko defal bam mu bu doole la wala muy alal wala muy xel mu rafet wala muy xel mu rafet ku ne ci ñun jàpp ne yow rek yaa ko war ku nekk jàpp ne yow rek yaa ko war def. at mu ne bis la ciy doon. at mu ne bis la ciy doon. su jàllee balaa ñëwaat di déwén. su jàllee balaa ñëwaat di déwén. yàlla nañ fi ay déwén yu bari fekk nag. yàlla nañ fi ay déwén yu bare bari fekk. waaye déwén ju ñëw rek. waaye déwén ju ñëw rek. jàppal ni ji mooy ju mujj ji. ni ji mooy ju mujj kon naa ci def lu ma mën. kon naa ci def lu ma mën. bis baa ngi noonu di ñëw. kon bis baa ngi noonu di ñëw. ñu fexe ba la 3 bii ñëw incha allah. ñu fexe ba la 3 di ñëw incha allah. nin ko waxante woon. nin ko waxante woon. ca ngoon ga. ca ngoon ga. ku yeewu fii na nga yeew. ku na nga yeew. kuy sëf dara andi nga sëf andaale. kuy sëf dara andi na nga na kuy làmb sa poche kasaalika. ñu mën a seet diggante bu ko defee ñu mën a seet le 3. Ya ak bis ya ko féete kanam. lu ne fu mu jëm. lu ne fa fa mu jëm. nit Wah ngi dox nag. nit ñaa ngi dox nag. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. dañ koy fàttaliwaat rek noonu. dañ koy fàttaliwaat rek waaye nit dox. liggéey ngeen liggéey wax. ko Assane rek na demee. boobaak léegi ñoom dagg nañ seen seen di fa féete toujours. li tax mu ñor li tax mu ñor ko moom sëriñ bi. mooy sunu jëmm yi rek. mooy suñu jëmm yi rek. toujours mu wax leen mu wax nu ko. keroog ba Ndeye Sow mii sàkkoo ne fu ñu foo bu ñu bëggee yeesalaat suñu yaram am ko. ba soxna Ndeye Sow sàkkoo ne bu ñu bëggee yeesalaat suñu yaram am ko foo xam ni. ak fu ñuy solo. ak fu ñuy solo. boobaag léegi. nee na boobaag léegi. yitteem ci loolu la nekk. ci loolu rek la nekk. saa yoon fa demee rek. saa yoon fa demee rek. mu mel ni suñu kër yi bàyyi. mel ni suñu kër yi ñu bàyyi fii. boo bëggee dallu dallu. boo bëggee dallu dallu. boo bëggee laal ndox laal ko. boo bëggee laal ndox laal ko. boo bëggee soppi sa yére nga soppi. boo bëggee soppi sa yére nga soppi ko. moo tax lu xat la. xat la. waaye bi ci gaa yi noppee. waaye bi ci gaa yi noppee rek. dafa nañ ko attaqué rek. dafa nañ ko attaqué rek. maanaam léegi nekkagul 40 tonnes fi mu ne. fi ne léegi ñu romb 40 tonnes. fer mom moom xamuñu num mu toll. moom mii moo jëndoon. ëpp na ay toni ton di dem. ndax liñ ñu defoon fii yëpp. dem na jeex na. te yoon wa it. na nga ñi nga ca fu nekk. bëgg. bëgg. ñun daan tase tase yëf yi. ñun daan tase yëf yi. daa bëgg lepp groupé wu ci benn barab. bëgg lépp groupé wu ci benn barab. bu ñu suñ borom dimbalé dina doon wàññi bu nga xam ne day doon wàññi bu yaatu. nga xam ni lépp lu ñuy def rek. dana fa mën a nekk. incha allah rabbi. fa wàññee war a ne. fa ñoom tey fa lañ xëy. ñoom tey jii fa lañ xëy. bëgg balaa màggal ga rek. miir yi moom tëju. miir yi moom tëju. la ca des des ca. kon liggéey baa ngi noonu. lu ma kon lu mu ci def rek. yàlla bëgg bu ngeen màggalee. yàlla bëgg bu ñu màggalee rek. mu mel ni nan la Touba mel mu mel na Touba mel. yàlla na ko suñu borom def. macha allah loolu rek mooy mbir mi. kon ñun ñëpp nañ ànd farlu. ni mu ko waxee tamit. ni mu ko waxee rek. jaadu na na. ku mel ni man ku ku mel ni man ku ne. yenn saa nga yóbbu fa sa doole. yenn saa sa doole. baax na ci de. baxna ci de jàpp ci. doo ko wat waraf neena yobante galgal ubul lam neena mom bam fa demee. ba ñewé dama jaaju wat bu mu da jaaju wat ndax passif gën am ñom jere ngeen jëf ngeen jëf. nit mom bu dee. nit bu ni.

ñaari baat yi nga wax ni ñaari baat yi ñu wax. muy ngor ak jom. muy ngor ak jom. Cheikh Ibra wax ni. wax ni. jom ji mooy tax. jom ji tax. lu mu sama jom yóbbu ko sama jom yóbbu ko. waaye ngor gi. waaye ngor gi. tax tax. ba baax. sama defere ba baax. dama la war mukk. ma bëgg nga bàyyi mag ñaar yoy borom ngor du wor. borom ngor du wor. borom jom du wàññiku. yalla ñu ko yalla defal barakallahu yalla defal ñu tawfiix ak susura te buñ toogatee ci jotay imam di waxtan léegi imam di waxtan léegi nañuy déglu wax ji di ko teewlu day tax nu man ko jëriñoo day tax nu mën koo jëriñoo waaye buy wax lu am solo waye buy wax lu am solo te teewlu nekk ci yeneen doo déglu wax ji maa ngi woon ca maa ngi ci daayira rek ngay wax way dula la dara ta mi ngi set lol ci bir mbolo mi bu conférencier bi di waxati na la ñor moy tax mu jariñ la tax mu jariñ la. turu yalla turu yàlla. li fek tewlu woko do am doo am am bi. ko xamni saxal na turu yalla te diko tewlu kooku mooy kiy tonuwu ci turu yàlla ba noppi mu dàqal ko lépp luy ndax nag kon booy tudd yàlla da ngay jël sa temps teewlu ko buñ lay jàngal it kazalika dañ ciy def yitte boo bëggee boole njàng mi fu ne nga xool fa fu ne nga yër ko sa xel dootu ci ne turu yàlla it noonu la mel macha allah kon loolu rek mooy kaddu yi bi ma joxee dogub bi ñu doon sikkar salaatu ala nabi bi semaine bii passé. nee na bi mu joxee doggub salaatu ala nabi semaine bi passé. ñu bari Europe Amérique. ñu bari Europe Amérique def nañ ko. sama téléphone ku ne ma nee na ma kenn ku nekk neena na ko eggal nga. ñaan naa ci yàlla fasal naa la ci. ñaan naa ci yàlla fasal naa la ci. maa koy waxaat. mi ngi koy waxaat. nañ delluwaat waxaat suñu borom. nañ delluwaat waxaat suñu borom. dañoo julli woon ci rasulullah. comme dañoo julli woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. muy salaatu ala nabi. nañ jël laa ilaaha illallah. nañ jël yooyu. fukki junni ak ñaar. fii ak àjjumay delsi. yaa xam noo ko mën a doge rek. yaa xam noo ko mën a doge rek. dafa divisé. ba mu mën a mat. ba mu mën a mat. ñu ñaanat yàlla rek ab jaam daal bu boolee tudd boromam. ab jaam daal bu boolee tudd boromam. ak julli ci rasulullah. ak julli lu mu bëgg ci yàlla mën na ko am. làmmeñ wu la gën a bari. làmmeñ wu lu muy tudd yàlla. borom làmmeñ wa. moo ku ko deful. ci lu wér. kon maa kon mi ngi sàkkuwaat douze mille fois. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. su ma nee ba mu jeex bu ma nee àgg ba mu jeex Muhammadu Rasulullah. fay laa alhamdu wa sukru. koo xam ne mënoo koo jote noonu. koo xam ne mënoo koo jote noonu. ndax bëgg mu gaaw ndax bëgg mu gaaw. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah dana doy. na ko ñëpp def balaa ajuma. dee leen tudd yàlla. dee leen tudd yàlla. dee leen tudd yàlla. wa man yu'rid an zikri rabbihi wa man yu'rid an zikri rabbihi fa inna lahu ma'isatan danka fa inna lahu ma'isatan danka làmmiñ bi dul tudd suñu borom làmmiñ bi dul tudd yàlla xol bi day day xol ba day lëndëm bu ko defee war a lijjanti bu ko defee lépp loo war a lijjanti dafay dafay am ay tak-tak day am ay jafe-jafe waaye booy tudd yàlla waaye tudd yàlla sa léppay ubbi ko kon nañu tudd yàlla fu ñu toll te di ko fàttaliku. kon ndigal laa ngi waat noonu. fukki junne ak ñaar. fasal nu ci. ñoon ñaan yàlla bis bii ñu dëgmal. na mel nu mustamel ci yiw. na mel nu mustamel ci yiw. ak i xéewal. ak i xéewal. te dem ak dikk gi lépp di jàmm. te dem ak dikk gi lépp di jàmm. ci bi jaaxi rasulullahi. barkeb xaadim rasul. kon jërë ngeen jëf. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. اللهم إنا نسألك من كل رب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل حسر يسرا ومن كل فائسة سترا وعلى كل خير سجل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Amed Diop jox na tonn. Amed Diop moom it jox na tonn si waaw góor incha allah waaw بل